ñëwee ba léegi li fi am mës am si àdduna euh, Mamour Diallo ba mu ñëwee dafa jël ay mbokkam jël ay xaritam jël ay géwalam embauché fekk fi ñoo xamante ne bii fe fekk fi ñoo xamante def nañ fi vingt ans quinze ans dix ans te ñun embauché bu ñëwee ñun fekk ñoo ñoo leen jàngal liggéey loolu la ñu na dakk dafa doy dootul am su loolu passé ñuy wax tamit ñun am euh, prestataire ONAS yi ñun li ñuy daj dafa métti da ngay xëy ba ngoon jot na ci liggéey bi risques yi yi ngay jànkonte tekki li ñuy fayee mu ne nga waxoon ngeen jàpp seen gémmi est-ce que mën ngeen comprendre salaire quatre-vingt-cinq mille cinq cent xoole ki dëkk Kër Massar war a paas di liggéey ji ville quatre-vingt-cinq cent bu si paasee xëy liggéey aller-retour chaque mois ñaata la war cee dund war ñi dundal njabootam ñuy wax jëm su loolu paasee na xool si contrat yi ndax contrat boo xam ne at baat la ñu koy defal contrat wu dictateur la